moom nag dañ damay daal di dégg xale jigéen di ko tuddee vendeur de du xam naa dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo rek ñu daal di doxal Tarba salaamaaleykum maaleykum salaam fa maa ngi ci jaar yaa ngi sant sëñ Saari bu ci loo nekk maa ngi nii rek avant may commencé damay nuyoo d'accord di nuyu sama daal bàyyi maa avant may commencé maa ngi sama fans yi mhm. di nuyu sama clients yi sama doom yi mhm. di nuyu sama xarit yi nga xam ñoo ma jàppale di nuyu sama yaay ndax foo ma jaar nuyu ko Fatou Bintou Touré borom Espagne mhm. doomu yaayu Ndeye Sali maa koy nuyu passage mhm. di nuyu sama mag mhm. Abdou Take sama xarit waaw di nuyu Momoro Sol sama doom yaay di nuyu Père El Hadj <laughs> kooku moom <laughs> waaw kooku moom sama sama lépp waaw dafa leer waaw waaw kooku kooku du ma du ko nuyu di nuyu sama mag <laughs> kokki waaw Baye Ibra waaw di nuyu euh, bu borom borom Sandaga. maa ngi nuyu gars yëpp xaalim cuuraay gars yëpp maa ngi leen di bëggee. d'accord waaw alors Tarba comme ni ma leen ko waxee woon rek mu nekk xale bu ndaw dekk ci ci ci milieu bi di def lu doy waar euh, xale jigéen ñi nee naa la ko ci sañse sañse bu rafet wala nga sol robe bu sexy su fees bu rafet bu rafet Tarba la. Euh, tarba ji laa bëggoon nga ñëwal ma ci ndax ku ne xam ne ne xëy na surnom la tarba ji dañoo gis ne tarba shop la yow yaa tudd tarba wala da nga tuddee boutique bi loolu. waaw faa laaj eh, kii Feuz laaj nga ma ci question bu ma. bu ma neex vraiment. Mhm. parce que tarba shop bi ñëpp da leen a jaaxal quoi tarba tarba bi. Mhm. man sëñ Babacar laa tudd. macha allah mais tarba bi surnom la quoi ndax tarba shop tarba mbaay laa tuddee sama boutique. tarba mbaay benn tarba shop ñu dem ba tarba bi tarba bi law ci quoi. léegi ñëpp di la waaw naan tarba tarba tarba waaw léegi euh, suñ baax bi sax kii na tarba la ñuy wax daal mais mooy bu baax baax parce que li may jaay comme dafa zaay rek waaw tarba bi mooy mooy temps bi quoi. yaa <laughs> looloo waral loolu moom kenn ko Euh, di ci teg yenn yi. waaw looloo tax euh, ñu ñu doxantu tuuti xam naa si boutique bi ñu gis la ngay jaay yu yu am solo. waaw di di solo xale yi jigéen ñi. waaw loolu dëgg la ci gis mu sol lu rafet naan la Tarba Shop. waaw fële ci H&M. mu mel ni da nga cee làqutoo ak caay-caay. làqutoo caay-caay mooy jékki-jékki gis Tarba muy jaay ay yére ñu jékki-jékki gis Tarba. muy génn foo xam ne daal doy na waar lan naka naka nga duggee ci loolu. waaw parce que boo nee Tarba Shop le vendeur du peuple peuple <laughs> vendeur du moom lim ki lim ëmb moo bëri quoi waaw parce que yére nag mooy sama domaine. Mm-hmm. parce que yére moom daanaka ñëpp moom la ma xamee. mais nag euh, xam ma man moom jigéen nu ma mel jigéen ñi la. parce que ñoo ma def ni ma mel quoi macha allah. Mm-hmm. moo taxit it lu leen di suturaal ak li leen di euh, jox bonheur. Mm-hmm. man ci laay dox man Tarba. waaw. jigéen gu bëgg bëggul rek man bëgguma man Tarba ci loolu laay dox. ndeysaan loolu euh, dañ naan bëgg sa yaay rek da ngay daal waaw loolu moom waaw dama nab ci moom. te yàlla ah, jigéen ah. yàlla waaw <laughs> ah, loolu la quoi vraiment moo tax it euh, ñoom lu bëgg rek ci laay dox quoi vraiment mm-hmm. waaw ñu gis ne comme li ma la wax sànq rek na la ay yëre dañ la xam ne mais ñu mhm. gis la nga jékki-jékki di def ay secret de femme. Mhm. ñu jékki-jékki gis Tarba ay bagages yu doy waar eh, léegi yow dafay mel ne kon da ngay dugg ci société bi di dugg ci néegu sëy yi. Mhm. parce que ku ne xam na ne sëy. mën nañ dem ba si yàgg mu am benn benn benn benn jafe bu si am. Eh, jafe-jafe yooyu mu mel ne Tarba yow dafa mel ne am nga ci quelques solutions yooyu. waaw parce que mooy li ma la wax rek man bëgguma jigéen bi suufee te jigéen yi nekk ci néegu sëy ah jigéen li muy souffrir dafa bëri parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi guwaat sax te lii leen di guwaat loo man dama koy trouvé quoi parce que stress bi. Ah. moo leen di guwaat loo ak loo xam ne ni ñoo ngi koy dund seen biir sëy te mais la bonee ci góor aussi. waaw dëgg la moo tax ma wut leen ñoom ñaar ñëpp ma wutal leen solution. <laughs> parce que bëgguma it keemer. parce que dama ñëw si jigéen ñi far ak ñoom lool lool ma dem ba ci yàgg góor ñi commencé di ma di ma sànni xeer. di la sànni xeer naan la jigéen ñi nga faral. ma jigéen ñi nga faral. te ba ma jugee ci ñoom eh, ba tey am na yu bëri loo xam ne déggatu leen ko muy am muy genre ay yëkkataan ak yooyu amatut déggatoo loolu man maa dindi loolu ci société yëkkataan amatul noo ko dindee tam parce que li tax ma dindi ko solution bi ma leen indil moo tax mu dañ mooy ban mooy dama leen indi lu ñuy utiliser ah bon waaw nga xam ne kenn dootul yëkkataan dootul ubbi dootul dafa yooyu ma lijjanti loolu ak mballoo yooyu yëpp dafa jeex man maa ko dindi gars yi dañ ko daan def ci toile di waaw ah, ay saabu. léegi ko. léegi maa ko dindi maa ngi indil loo xam ne nii mën nañ koo utiliser eh, te te te du leen indil benn jafe-jafe te dañ ci yëg plaisir. muy lan man man mantarmaa ni loolu jaaxal na ma de loolu indi naa ko indi naa ko. Ah. waaw ci kanam tuuti bu waxtaan wi kii dinaa la ko génneel nga gis ko. Ah. waaw indi naa yooyu yëpp. parce que dama bëgg a xam ne àjjana soriwul gaa yi xam ne. Mhm. dund loo fekkee. te comme ñun ay nit rek lan. Mhm. te ay doomu aadama la. dañu yëg dara waaw moo tax it ma saafara ko. mu mel ne <laughs> tey jii li ma leen waxoon ca début bi rek nee naa leen émission bi kuñ ko nettali dootoo ko defati sa àdduna ndax man dama gis ne yàkkataan moom nee na jëlee na ko fi. Mhm. kenn déggatu ko léegi. ndax nee na indi na solution bi nga xamee ne que. Mhm. Euh, gars yi ñu ngi koy jëfandikoo. Mhm. bëggoon naa nag nga won ñu lan ngay lan la gars yi di jëfandikoo ba amatul loolu amatul. yëkkataan waaw loolu noonu. lu ndaw la. na ci façon. ñëw ci ñoom ndànk. indil ma benn ma xool. sëy sëy. tegaay tegaay jëlati sa téléphone ndax tey jii xam naa ne ak tarba. waaw ak tarba tey jii daal. xam ne dara du yomb. léegi mën nga ko teg nii. gis nga lii. man dayoo ko fiy jaay. foofu su xoolal baax. lii mooy sexe bu bu góor bi bi góor ñi utiliser. am na bu ndax bi moo nekk noonu. di mais bii mooy bu mag bi. léegi ma ñamal la <laughs> ci. Samba lii nga may wan nii maa doyul ci man man xale laa. Feuz ay xale la ñu Feuz gis lii. lii lan la. làmbal lum lay niroon doo yëg. nii da la mel ah lii pour la. bii Feuz. pour góor la. góor moo koy utiliser. waaw bu dee yoon na ñetti nga waaw waaw parce que lii dafa gudd parce que dañuy sóoraale. ñu gàtt lañ ak ñi nga xam ne dañoo guddule. Mhm. lii boo dugalee bu ba ci ba ci ba ci ba ci. boo dugalee lan. boo jëlee seringue bi xamoo seringue. d'accord xamoo seringue fës. bu ma yàq man lii xaw ma. boo jëlee seringue xam nga seringue bi ñuy piqué de. seringue bi fës war ngaa xam seringue. waaw waaw léegi bu baax ñitti nga bi. waaw waaw nga dugal boo dugalee. waaw bu boo poussé poussaat bul ëppal boo poussé poussaat daa am liquide buy génn. ngay sant ci biir waaw dafa am courant quoi. non non du courant lii silicone la yàpp la. li boo defee dugalee nii. Ah. day dugg day dem. ndestaan. waaw waaw am na ñoo xam ne dañ koy jël. pour am na ñoo xam ne dañ koy jël comme nii dañ koy jël am na ñoom dañ koy jël. pour pour di ci yàqala baal xale ni ah. mais moom affaire bi moom amuñu différence. boo ko sentir dafay mel ni affaire bi la. Oh beñeet. boo ko jaxte ak lii day amul différence. Mhm. je te jure. te lii gars yi ñu ngi koy jënd. ñoo ngi koy jënd wel wel ndax ji góor ñi ñoo ma ci sonal ndax jigéen bu jigéen bi laa doon jaay ba bu euh, góor bi. waaw bu jigéen euh, góor ñi euh, sonal ma ne mootal leen bu jigéen. léegi ñii ñeen ñoo koy faral di jënd ci yow borom jabar yi wala ñi nga xam ne ay célibataire lañ. non ñëpp koy jënd. parce que borom jabar dañuy jënd lii. ah day fekk ñi nga xam ne seen jabar yi nekk ñu fi. wala peut-être waaw te bëgguñu bëgguñoo dem feneen ba pare man ñi ma koy jaay ñu ci bëri dem naan jigéen ñi am na ko xam jaay naa ko mais nee na jabaram dafa yaatu. Ah. ak ñii naan seen jabar dafa dafa xeeñ. liñ ci ja jàkkoonte te. xeeñ am na ñoo xam ne nii ñu bëri ñoo xam ne nii. parce que dañu bëgg di ci yëy te duñu am lu ñu yëy parce que bëgguñoo yëy loolu parce que dafa xasaw. Ah. moo moo tax ñu jënd li yenn saa yi ñu sëgg ci màcc parce que ñoom am nañu góor parce que góor dafa bëri façon. waaw am na góor ñoo xam ne daa am lu leen di daaneel. Mm. am ñoo xam ni nooro bi nii moo leen di daaneel. ok understand am ñoo xam nooru moom duñ ci doyal moo leen gën a sax def sexe mm. waaw te am na xam am na benn waaye boo xam nee na ma euh, dama dama kii mais dama bëgg a nuuru mais du ma nuuru te boo nuurut moom looloo koy daaneel soxna si nee na bu defee nii du mën a nuuru day fifandiku xam nga fifandiku te day bañ jaba soxna si mer mais il faut mu fifandiku fifandiku mooy teg ci bakkat bi naan ni di ko ci rëdd te gémmañ gi ci dem